waa Ziguinchor dama leen andil sama rak sama xarit di suñu candidat yu ñëpp muy Bassirou Diomaye Faye Gracias. donte nag suñu jaam la ma ne donte nag suñu jaam la waaye léeg-léeg buur du ko jëf moom ma andi leen ko leen wax ni ki voteel Bassirou Diomaye dafa mel ni voteel nga ñaari yoon Ousmane Sonko jarul ma koy wax fii sax ndax fii mbokk na ba pare fii combat du fi am wax naa gars yi nii fii ak Bignona ak beneen su mel noonu mënoon nañ ko bañ a dem.